alhamdulilahi xaqa xamdih walsalaatu walsalaamu ala abdihi wa rasulih muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowm ddin amma baad mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala di leen dénk di dénk sunu bopp settantal alquranul karim téeréb sunu borom tabaraka wa taala borom bi tabaraka wa taala soññ nanu ci téereem boobu ci def li nga xam ne lépp ay topp yàlla la wax ñu topp yàlla yooyee li muy jur ci tuyaaba ak li muy jur ci meññeet loolu lépp ngir nu baril ay topp yàlla tere nanu ci téere boobu lépp loo xam ne xeetu mooy yàlla la biralal nu leeral itam mbugal yi nga xam ne mooy tegu ci kaw mooy yàlla ak jeexit yu metti yu bari ay lor yoo xam ne moo ciy tegu loolu lépp ngir ñu wattandiku ko daw ko borom bi tabaraka wa taala ci téere boobu melalal nanu ajjana ak la fa nekk ci ak xéewal goo xam ne gu sax la te du dog mukk leeralal nu sawara ak la fa nekk ci mbugal mu sax mu dul dog mukk lu tax ngir ñu mën a jëf ay jëf yoo xam ne yu ñu yóbbu àjjana la te bàyyi bépp jëf boo xam ne day yóbbu nit ki sawara mbokki jullit yi su fekkee ne jullit bi fu mu toll fu ne ragal yàlla da ko war di beesalaat saa bu xëyee yëg ne ni muy aajowoo lekk aajowoo naan noonu lay aajowoo dolli ko ak ragal yàlla su fekkee loolu lu am la ma ne jamono jii lu nekk gën naa feddliku aajo ji gën naa yokku ngir bari gi yàqute gi ngir bari fitna yi sunu borom tabaraka wa taala diggal na jaamam yi ne nañ ko ragal nañu ko ragal te kat loo ragal lu mu mën a doon da koy daw ba mu des sunu borom tabaraka wa taala moom boo ko ragalee da koy jege da ngay daw jëm ci moom loo ragal lu ne da daw won ko gannaaw waaye sunu borom tabaraka wa boo ko ragalee da ngay daw jëm si ci moom da koy won kanam daw jëm si ci moom bi maanaam ay ndigalam da koy fonk di ko jëfe ay tereem da koy daw dañ koo jege borom bi tabaraka wa taala nee na seytaane day li muy jëflante ñi féeteeg moom ndax dafa am ay péete nit ñoo xam ne seytaane la ñuy liggéeyal moo xam ne yëg nañ ko wala yëguñu ko mooy ñi ko nangul nee na ñooñu fu mu toll da leen di ragal loo da leen di ragal loo buñ bëggee def lu baax mu ragal loo leen loola su fekkee ne bëgg a def jaamu yàlla bu aju ci yaram ak coono la mu ñëw ci moom déey ko ne ko nit ñëpp ngi tëdd di noppalu lu tax ngay rey sa bopp bu bëggee yëkkati dara ci alalam def ko fi sabilillah mu déey ko ne lu tax ngay def lu mel nii te xam ne wóorut dangay ngay ñàkkam déet te sa alal ji bu jeexee doo gis ko la dimbali kon noonu lay toppee ay péetéem di leen nax di leen déey ay yëf yoo xam ne ci xol ba lay nekk di jax-jaxi yoo xam ne moo leen di tee def lu baax moo tax mu ne innama dalikum asheytaanu yuxawifu awliyaa innama dalikum yu yuxawifu awliyaa daf leen di ragalloo ñoom ñu féeteeg moom borom bi dañ ne fala taxaafuuhum wa muy seytaane ci boppam ak ña ko topp borom bi nee na bu leen bu leen leen ragal waaye ragal leen ma man ñi ma amata ragal su fekkee ne gëm ngeen su fekkee ne gëm ngeen ma kon foofu la defe ragal yàlla ci boppam ragal sunu borom mu nekk ab charte ci gëm yàlla ki gëm yàlla dafa war a ragal yàlla moo tax ibnul qayim rahimahullah day wax ne xol bi dox jëm ci sunu borom tabaraka wa dafa mel ni picc muy naaw nee na picc muy naaw dafa aajowoo bopp ak ñaari laaf su fekkee ne bopp ba mucc na laaf ya mucc picc ma day naaw bu baax a baax a baax jëm fam jëm nee na li nga xam ne mooy bëgg sunu borom tabaraka wa taala al mahabba nee na loolu mooy boppub ragal yàlla comme ni picc amee bopp waaye nee na ragal sunu borom tabaraka wa taala ragal mbugalam ak yaakaar yërmandeel ñaar yooyu ñu ànd nee na ñooy ñaari laaf yi ragal ak yaakaar nee na kon su bopp bi muccee laaf yi mucc picc ma day naaw bu baax di dem kon yow mi boole bëgg sa borom tabaraka wa bëgg ay ndigalam bañ ay tereem bañ lépp lu mu bañ boole kook ragal ko moom sunu borom ak yaakaar yërmandeem yow mi boole yooyu kon saw doxiin jëm ci sa ngërëmul boroom doxiin wu gaaw la waaye nee na picc ma day buñ daggee bopp ba nee na day daal di dee buñ daggee bopp bi mu dee kon bëgg sunu borom tabaraka wa taala su fa nekkatul kon day dee nee na it jamono yoo xamee ne ragal googu nekkatu fa ak yaakaar ga itam mel na ne picc moo xam ne dagg nañ laafiya su boobaa nee na rëbb bu ñëw jàppkatu picc bu ñëw bu nekk nee na doo ca sonn da ngay ñëw rekk jàpp kon su fa ragal nekkut ak yaakaar lu ñëw lu ne yóbbaale ko ndax amatul objectif ci dund gi borom bi tabaraka wa taala leeralal nanu ñi ragal sunu borom tabaraka wa taala man manzila fa moom maanaam seen place ak seenu pay nee na képp koo xam ne ragal na boroomam ragal daje ak boroomam maanaam bàyyi xel bis ba nga xamee ne dana dajeeg boroomam muy jaar ak moom fa mu ko jaar di reglenteeg moom ay pas-pasam ay jëfam ay jikkoom ba war koo fay koo xam ne foo toll yaa ngi xalaat ci loolu di ko bàyyi xel fexe ba sa bakkan bànneexam ba lay xëcc jëmale la ci mooy yàlla nga yemale ko nee na kooku àjjana muy këram ëllëg kooku ajjana muy këram ëllëg wa amma man xaafa maqaama rabbih wa naha nafsa an il fa inna aljannata hiya almawa borom bi nee na wali man xaafa maqaama rabbihi jannataan ki ragal boroomam bàyyi xel bis ba muy taxaw ci kanam boroomam nee na kooku am na ñaari ajjana boroom xam-xam yi nee na ñaari ajjana yooyu ajjana ëllëg ja moom ñépp xam nañ ko mooy tàbbi ga muy tàbbi ajjana te loolu la yépp bëgg waaye nee na ak dundam fii ci àdduna ajjana la ndax nooflaay ba muy yëg ca biir ku ko yëgul doo ko doo ko mën a xam mën naa nekk ci bitti booy xool ne ah kii de xam naa dund gu metti lay dund màndarga yi day feeñ ca lam sol bokkul ca col yi gën taaru day feeñ ca xar kanam ba mënul ku sonn lool day feeñ ca man-man yaag pexe yaag alal ya lu néew a néew la yor ci àdduna waaye ci li mu yëg ca biir digganteem ak boroomam ci ab nooflaay ak mbétte ci tawfiq ji ko sunu borom tabaraka wa taala defal mu tënku ci siraatul mustaqim di def lu baax di bàyyi lu bon yëg-yëg boobee moom la salafu saalix doon wax ne mu yi muy buur ya nekk ca seen biiri pale nun jaamukati yàlla yi salafu saalix ñooy wax de ñu ne nun jaamukatu yàlla yi bu ñu yëgoon li ne ci li ñuy yëg nun ci suñ biir xol yi nee na kon dañuy génn seen pale yooyu yor ay jaasi ñëw xeex ak nun pour nangu ko waaye nag loolu munta nekk kon kooku tawfiq la boo xam ne yàlla na ko sunu borom tabaraka wa taala defal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci buxaari ak muslim xadisu abi hurayra nee na juróom-ñaara ngi yoo xam ne bis bu yowmal qiyaam di taxaw nit ñëpp nekk ci njàqare ak metit ku yàlla mas a bind nga mas a nekk mu kallaf nga génn ñu jegeel jant bi ba mu tàng ñëpp nekk ci aw metit ñu yàkkamti ñu atte leen naaj wi metti ñaq wi jéggi dayo ba ñu wax ne am na ñuy lab ci seenu ñaq nee na bis boobee am na ker goo xam ne keru sunu borom tabaraka wa taala la goo xam ne daf koy indi mu dëll lool sedd lool mel ne luñ climatisé nee na ker googu juróom-ñaar ngi ñoo xam ne bu boobaa dañ leen fay yóbbu ñu taxaw fa lu mu metti metti ñoom duñ ko yëg ak lu mu yàgg-yàgg ñooñu mu tudd ca walla bu jiital ca sax imaamun aadil njiit loo xam ne dafa maandu du tooñ kenn njiit nag buñ ko waxee matale na mboolem njiit yi njiit la tàmbalee ca ka jiite xeet wa su fekkee xeet wépp ànd nañ am njiit suñ ko amul te def ay réew it comme li ñu dund réew mu nekk am na njiit lu fa nekk foofa la tàmbalee di wàcc ca suuf ñu ko féete suuf di wàccaat di wàccaat di ñëw ba ci yow mi nekk ci sa entreprise ak say surga yaay seen imaam yow mi ci sa kër ak sa njaboot yaay seen imaam kon kam maandu ca la muy def maandu te nag mooy doo tooñ kenn waaye ku ne da ko jox àqam ci waxtoom loolu mënu caa ñàkk doo ko tooñ waaye da koy jox ak xam ci waxtoom ndax nit ki kat mën na koo jox ak xam te teewul mu tooñ ko ndax joxu ko ko ca waxtoom kooka moo ca jiitu ci ñi am ker bu bis boobaa ka ca tegu nee na koo xam ne dafa doon ndaw loo xam ne dafa sosu màgg ci jaamu yàlla nekk xale bu ndaw war a mën a dem di tàggatu ji di bëre walla muy futbali wala mu fanaan ci ay baar wala mu doon ab caaxaankat wala mu doon ab fecckat wala mu doon ab misikkat yàlla xettali mu doon ndaw loo xam ne ndawul daara la ak ndawul jàkka nee na kooku bu bis boobaa am na place ca ker googa ka ca tegu nee na koo xam ne xol bi dafa aju ci jàkka saa bu génnee ci jàkka li muy xalaat mooy kañ li ci dellusiwaat bu dee montar la yor muy xool waxtu bi fu mu toll yenn boroom xam-xam yi ñu ne ci jàkka la wax waaye ci julli la jëm julli la bëgg a wax ndax kat bu dee jàkka rek te fekk du julli ci boppam moo ko fa yóbbu su boobaa mbir ma du demee noonu waaye su fekkee ne waxtu julli ci boppam moo ko itteele noonu nga xam ne fu mu toll fu nekk mu ngi xool ndax jot naam jotut kooku xol bi aju na ci jàkka waaye aju na ci julli itam ka ca na mooy ñaari nit ñoo xam ne ngir yàlla taxoon ñu ànd ba ñuy dem bay meroo bay tàqalikoo it ngir yàlla tax ñu tàqalikoo ndax kenn ka amaana jeng na kooka bàyyi ko dem ngir yàlla kese moo tax intérêt àdduna taxul mu bàyyi ko ku ci nekk jàpp ne sa moroom dafa jeng dafa bàyyi diine moo tax nga won ko gannaaw te fekk bàyyiwul diine dëgg la dangaa juum waaye teewut bu boobaa am nga place te béréb boobee ndax yàlla tax ngay def mu teg ca ne koo xam ne dafa nekk fi béréb boo xam ne moom dong nga fa nekk ak boroomam nee na mu fàttaliku yàlla ay rangooñam tuuru kooku am na place foofu bis boobaa ka ca des nee na waa joo xam ne tollu na ci ndawam ak kattanam jigéen wéet ak moom yoo xam ne boroom daraja la boroom taar la woo ko ci boppam mu tontu ko ne ko indi axaafullah dama ragal yàlla nee na bu boobaa kooka place ma nga ca ker googa nee ak koo xam ne dafay sàkk sarax di ko joxe ci anam goo xam ne du ko fésal du ne maa ko jox du ko génne ne maa jox diw sàngam nangam maa ko tax añ tey bu dul woon ak man du takk soxna bu dul woon ak man defewu ko noonu waaye daf koo def nëbb ko ba dafa mel ne sax ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam melale nëbbiin wu xóot la moo di day mel ne ndeyjoor bi joxe sarax si sax da koy nëbb loxo càmmoñ bi ba du ko yëg kon nëbb gu mel noonu kon nit taxul ñuy wax mbokki jullit yi juróom-ñaar yi mu tudd boo leen seetee ñoom ñépp ci biir cadre ragal yàlla lañ nekk ñoom ñépp ci cadre ragal yàlla ci lañ nekk maanaam ragal yàlla moo di jox nii ñu mel imaam ja ragal yàlla tax mu maandu ndaw la ragal yàlla mooy tax mu sosu ci jaamu yàlla ki nga xam ne xol baa nga aju ci jàkka ya ragal yàlla moo tax ñaar ñi bëggante ngir yàlla tàggoo ngir yàlla ragal yàlla moo tax ki tudd yàlla wéet ay bëtam di tuuru ay rangooñam kooku ragal yàlla moo tax ki jigéen ji woo ci boppam mu ne ko inni axaafullah kooku leeral na ko moom nee na damaa ragal yàlla kii sarxe di ko nëbb fesal na ko boolewu ca ngistalit kooku yàlla rek moo tax mu di ko def ndax su doon nit ñaa tax muy def kon mu feeñal ko kon ragal yàlla ndekete mooy li nga xam ne moo matali lépp te mooy xett li nit ci ëllëg kon yoolu aj ragal yàlla jéggi na dayo rëy na anas ibnu malik jëlee na ci yonente bi sallallahu yoo xam ne dañuy alage maanaam dañuy alakaate ñett ngi yoo xam ne dañuy musle maanaam ñetti musiba yoo xam ne bu ñu wàccee ci nit ki alak ko alak ko mooy yàq diineem ñett ngi yoo xam ne bu ñu wàccee ci nit ki musal ko maanaam musal ko ci lu yàq diine ñett yi alage mooy yan nee na bi ci jëkk mooy suxun mutaa ak nay goo xam ne boroom da koy topp lu ko nay digal rek mu def ko lu def dara loo xam ne lu war ci moom la fekk nay moo tax waxawan hawan muttaba nee na ak topp bànneex topp bànneex lu kanam ne ay ca rek mu ne ay ca wa ijaabul mar'i bi nafsi ak nit ki boppam yéem du déglu keneen yëfi boppam doy na ko déglu keneen yooyu ñett nee na ay musiba la yoo xam dañuy alage waaye ñett yi musle mu ne ba ca jëkk mooy xasiyatullahi fi sirri wal alaaniya ragal yàlla ci lu nëbbu ak ci lu feeñ kon gis nga foofu la tàmbalee ragal sa boroom ci lu nëbbu ak ci lu feeñ ba ca tegu nee na mooy yamale say mbir ci wàllu dépense al qasdu fi l faqri wal ghina booy def nga def loo man mooy gàttal la nga def loo man loolu mooy al qasdu bi ngay def nga def loo xam ne da nga koy man moo xam da ngay joxe fi sabilillah moo xam da ngay jox sa njaboot moo xam da ngay wutal sa bopp waaye sharia daf ne nga doon ko digg doomu ci wàllu joxe ndax alal it te disu ko yàq maanaam dangay def loo xam ne lu jaadu la moo tax Saad ibn Abi Waqaas bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama alal yépp dama ko bëgg a joxe fi sabilillah te fekk dafa feebar mu ne ko déedéet bu ko def mu ne ko kon damaa bëgg a joxe genn wàll gi mu ne ko déedéet bari na mu ne ko kon sulus bi buñ ko defee ñetti xaaj dama bëgg a jël <laughs> benn xaaj bi joxe ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko loolu baax na ànd ak ne bari na ba tey waaye baax ne ko nga bàyyi sa njaboot ñi am luñ dunde moo gën nga wan leen gannaaw ñu dem di yalwaani nga bàyyi sa njaboot ñi am luñ dunde moo gën nga wan leen gannaaw ñu dem di yalwaani moo xam sarax nañ leen wala saraxuñ leen kon alal it dis ko yàq ba ca tegu nee na wal adlu fi lgadabi wa rida nee na ak maandu moo xam da mer wala da ngaa bég wala da ngaa gërëmloo lu ci mën a nekk nga maandu maanaam mere nit ki du tax nga atte ko lu nga dëkkal ko fu mu dëkkul kontaan si nit ki itam tax nga yëkkati ko place boo ne àggu fa loolu mooy maandu kenn ku ne nga jox ko àqam mbokki jullit yi kenn ku nekk day jàpp ne moom ku ragal yàlla la lu bari ci nit ñi loolu lañ yëg ñoom ci seen jëmmi bopp waaye ragal yàlla moom yi nag léeg-léeg day doon ab nataal léeg-léeg nag mu nekk original nag maanaam ak ragal dëgg dëgg dëgg gépp ragal yàlla goo xam ne day dox diggante nit ki ak yiñ araamal ci moom googu ragal yàlla original la mooy ragal yàlla dëgg-dëgg ga ak ragal nag goo xam ne teewul nit ka di def yañ araamal ci moom ba noppi continuer ca rek di ko def ñàkk koo tuub googu ragal ab nataal la waaye du ragal yàlla lii moo tax ngay gis ci biir ab société boo xam ne ay jullit lañ comme société yi nuy dëkk yi nu nekk nga gis ay jullit yoo xam ne ñi ngi dund ci biir ay mooy yàlla ñi ngi xëy ci lu naqari seen borom di ci gont te jàpp na ci ragal yàlla lañu nekk ki bàyyi julli ragalut yàlla ki sàggane julli ragalut yàlla kiy jëflente ak dundam ci riba ak am amam mu teg ko ci kaw riba ragalut yàlla kiy ger di neexalaate wala ñu di ko neexal ragalut yàlla kiy jar di wuruj buy jaay fexe ba li muy jaay mu wone ko ci anam goo xam ne melul noona naxe ko nit ña ndax ñu jënd ko moo xam dafa dellu ci publicité yi wala nam koy wane ci biir magasin ba wala nam koy wane ci loxoom kooka ragalut yàlla kii lekk alali nit ñi ci neen di leen nax nga xam ne rek ba seen alal jóge ci seeni dugg dugg ci poosam ak nu mu fa duggee kooka ragalut yàlla kii xëy di déglu musique di gont di ko déglu kooka ragal suñu borom tabaraka wa taala ki nga xam ne bu xëyee ci ay jabar lay xëy wala mu gëm leen wala mu jàpp ne la ñuy wax am na ca dara loo xam ne mën naa doon dëgg wala doon na dëgg lu dul seytaane moo leen ko jayee kooku ragalul yàlla ki ragal boroomam xam boroomam fu mu toll yooyu yépp mënuñoo am place ci ab xolam mënuñoo am place ci ngëm yàlla am noonu la amee ci jigéen ñi it nag jigéen ji tabarruj maanaam xëy sol sa yére yi woyof toy yaraax ku xool gis lu mu war a gis tuuroo say parfum ba xeeñ koo romb mu xam ne kii nangam ak nangam la jëfandikoo tey kooka ragalut yàlla koo xam ne bu génnee fitna lay doon ci kaw nit ñi ba ba muy delluwaat këram ragalut yàlla koo xam ne day sànni aw làmmiñam bu xëyee ca nit ña di jëw walla mu làmboo kiñaan wala mere ku ko deful dara walla xas ku ko deful dara ci deri nit ñi seeni alal kooku ragalut yàlla kon ragal yàlla daal mbir la moo xam ne bu ñëwee dafay lakk dafay lakk xeeti mooy yàlla yi su ko defee la nga xam ne daa doonoon ay mooy yàlla yu neex ci bakkan yu neex a neex ci bakkan nga xam ne bakkan bi day daw di ko wuti yooyu day mujj doon lu mu bañ day doon lu bañ day mel ne ki yor ak lem te fekk bëgg na lem lool mu dem ba di ko bëgg jëfandikoo ñu ne ko ah kii kat poisson da cene maanaam posen daane ci lem gi su boobaa lu mu bëgg bëgg lem du ko naan ndax xam nañ su ko naanee àllaaxira lay yewoo ji te bëgg naa dund kon nag yenit ka di bëgg ci bakkan ba di ko jiima wuti moo xam lu ñuy lekk la wala lu ñuy naan la wala lu ñuy sëy la wala ku ñuy dëkk wala lu ñuy sol tam xam ne lu daganut la da koy bàyyi ndax day xam ne ni mel ci diineem mooy lem gi làmboo posen ni mu mel ci aw yaramam noonu la ci mel day lakk sa diine mu jeex kon ragal yàlla gi day lakk xeeti bànneexi bakkan yi xeeti mooy yàlla yi saa bu ko jubee day xam ne kii posen la ci diineem mu won ko gannaaw mbokk jullit yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne yàlla jéggaloon na ko bàkkaaram yi jëkk ak yu mucc moo ko ko wax ci alquran waaye teewut mooy ki gënoon a tar nit ñi ak ragal yàlla moo tax wax na ci benn xadis mu ne man day li may gis gisu leen ko li may dégg déggu leen ko neena na asamaan binni na asamaan binni na binni mooy onk nee na teyit jaadu na mu onk lu tax nee na amut ci asamaan benn béréb bu tollook ñeenti baaraam ci asamaan nee na lu dul am na malaayika mu teg foofee ab jëm sujjóot di jaamu boroom nee na su ngeen xamoon li ma xam da ngeen ree tuuti waaye ngeen jooy lu bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wax mu ne su ngeen xamoon li ma xam dangeen dem ba sax tëdd ci ay lal di bànneexu ci seeni diggante ak ay soxna loolu duutu leen saf boo wattuwul da ngeen dem sax ba génn ci àll yi dem beru ji fi ay béréb yoo xam ne seen lépp da ngeen koy jox yàlla faf far bàyyi àdduna waaye nag lim xam nit ñi xamuñu ko kon loolu day won yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maqaama ba mu moom te nit ñi foofa waaye mu mën a nekk foofu ba àggal nag man a contrôler boppam nga xam ne nekk na foofu ba noppi yii mu doon wax dalunu dalu ko moom maanaam taxul mu bàyyi ay soxna teewul mu yor ay soxna yu ko ko boroomam diggale taxul mu féete woo jooy fu mu toll taxul mu bàyyi ay ree sallallahu alayhi wa sallam kon dangay xam ne maqaama la yor boo xam ne dem na ba gis teg ci bëtam ay yëf yoo xam ne keneen ku fa àggoon te doo moom danga bàyyi àdduna ak li ci biiram waaye nag ci yërmaande suñu borom tabaraka wa taala nun ñi nga xam ne suñuy man mën ak suñuy kattan àggul foofa yàlla xamalunu loola kooku yërmaande sunu borom tabaraka wa taala waaye lan cay jëlee muy mbir mu garaaw am na donte xamuñu ko it nag su ko defee loolu dana la dolli yow ak ragal sa borom tabaraka wa taala wattandiku ay tereem jublu ay ndigalam saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ meloon ci ragal seen borom tabaraka wa taala ñëw na ci saxiixul buxaari abdurahmaan ibnu awf kenn ku nekk xamoon na ne ci commerçant yi yàlla ubbi loon bunt ci commerce ci la bokk ba mu doon borom alal <coughs> benn bis dafa woor bay dog ñi indil ko ndogu li teg mu di ko xool ba mu yàgg mu fàttaliku mu ne Musab ibnu Umayr day mooy ki jëkk a dugal lislaam Madina kero bi mu faatoo lim bàyyi woon ci malaan muñ ko doon sànge suñ sàngee bopp bi tànk yi day feeñ suñ sànkee sàngee tànk yi bopp bi génn te moom a gën mooy wax de Abdurahman bin Awf nee na te Musab ibn Umayr moom a gën mu ne Hamza ibnu Abdul Muttalib di bàyyi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom a gën te dañ ko rey fi sabilillah mu ne nun nag nu dem ba jimbi jamono ñu ubbil nu alal nii nu gis ko muy tuuru jox nu ci àdduna bii jox bu yaatu mu ne dama ragal ne sun jaamu yàlla yin def ñi waroon noo fay tuyaaba ya ëllëg dama ragal ne dañ nu koo indil fii ci àdduna fayal fayanu ko lii ci aw ñam wum tiim nee na di jooy di jooy ba mu yàgg mu won ndogu loolee gannaaw jublu ji jàmm yàlla kon ñooñu àggoon nañ foofu ci xol yuy dund ak ci ragal seen borom tabaraka wa taala ragal yàlla nag mbokki jullit yi du caagi ni mooy bari ay jooy du caagi ni boo déggee kàddu rek daal di dóor sa bopp ci ab miir wala nga daanu du caagi ni boo tiitee daal di feebar ay fan du caagi ni mooy bàyyi yàlla daganal ci yow waaye ragal yàlla dafa am ñetti xeet dafa am bu yées am bu ëpp am bu digg doomu bi yées mooy ki nga xam ne su dégloo dara xol ba dana jeexit amaana sax rangooñ ya mën naa tuuru amaana sax mën naa daanu jël waaye su loola weesoo mu delluwaat ci lam nekkoon xol ba delluwaat ci càgganteem cër yi delluwaat ci ay mooy yàlla am googu ragal ragal gu manqué la ragal gu néew njariñ la ragal gu bari ay lor la sax gu ëpp gën a mooy ji jéggi dayo ba àgg ci yóbbe nit ki mu naagu ne man xalaas jeexal naa man du mën a mucc àgg ci saxoo di jooy fu mu toll àgg ci beru nit ñi ba liggéeyatut amalatu njariñ société bi kenn amalatu ko njariñ takkoo njàkkare loo xam ne mën na koo indil feebar faggootul dematul ci yu lew ya yëngootul ci kaw ne ak ragal yàllam dafa àgg foofa googa ëpp na moo tax santuñu nit ki mu ragal ragal yàlla ragal yàlla ku mel noonu kon gi digg doomu mooy gi nga xam ne dafay soññi nit ki ba yi war ci moom mu di ko def lépp lu xaraam mu teg ko fële su fekkee góorgóorlu na ba yokk ca nag yematul ci def li war ak bàyyi li xaraam waaye dolli na ca laxasaayu bu dëgër nag ci wàllu naafile yi moo xam naafile julli la wala naafile koor wala fegu ba nga xam ne yenn yi nga xam ne doyewu ko dara yépp donte yu dagan la mu bañ koo jëfandikoo bañ a àgg ci ku ko xool ku ne ne kii nituk àdduna kese la su fekkee mën naa àgg ci loolu ba tey kooku beneen martaba la nag boo xam ne moo gën a kawe def li war bàyyi lu xaraam xam ngeen ne noo ngi nekk ci weer woo xam ne weeru naa naafila la ci ko mu weeru saabaan kon jaadu na ci mbokki jullit yi ñi màng ci weer wi lépp loo xam ne luñ ci mën a woor ñu woor ko la lu dul bis ba ca mujj weeru saabaan mënees naa woor lépp ba mu des bir ci bis ba ca mujj loolu mooy résumé ab atteem ci wàllu fiq ci lan lañ ci woor beneen bi moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam weer wii mooy wu ëpp lu mu daan woor gannaaw boo xam ne weeru ramadan yàlla na waaye nag musta weer woor weer koor gu mat sëkk maanaam woor weer wa ba jeex lu dul weeru koor rek la ko mos a def li tax ñuy bañ woor bis ba mujj ci chaban mooy li ñuy tudde yow mu chakk la ñuy bañ ko ko woor bis bu ñuy nattale suba koor la wala du koor nga ne ah naa woor rek su fekkee ne suba mooy premier ramadan ma continuer muy sama ramadan bu dul premier it mu doon koor gi ma doon war ci chaban déedéet loolu dañ koy tere yow mu chaq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo tere mooy yow bi ñu bis bi ñuy sikki sàkka ndax ci ramadan la bokk wala bokku ci kon li jaadu mooy nit ki lum ci mën a woor na ko woor kon am na ay njariñ yu bari bokk na ci yi ci gën a fees nga xam ne ku ne mën nga cee teg sa bët moo di lu bari ci jullit yi bi weeru koor demee ba tey sàgganoon nañ ci kooru naafila dëgg la alhamdulilah am nañu yàlla baaxe ñuy woor altani di woor alxemes di woor ayaamul biir muy ñetti fan ci weer weer wu nekk bu bokkut ak altine jooju ak alxames ji ak yeneen ak yeneen waaye am na ñoo xam ne dañoo am nattu kooru ngàtt la kon dana ñaaw ci ab jullit boo xam ne daa dell si di yedd boppam mu ne man de ramadan laa mujjoon a wóor ba ramadan dugg si waat kon des na fi occasion boo xam ne balaa ramadan a dikkaat yow mën nga fee woor sax loo xam ne boo wëttuwut mën naa jot ñi doon woor altine ak alxames ci biir at mi yépp ndax des na ay fan yu bari yoo xam ne mënees na koo woor kooku benn njariñ bu fés la beneen bi ci des mooy tàggatu tàggatu ci koor gi ndax kat ki nga xam ne ramadaan lay woor ba ramadaan woor dellusiwaat kooku koor dana metti ci moom ndax aw yaramam da koy fàtte kon fan yu jëkkee ca koor ga loolu mooy tax mu mu ñàkk solo lool bu dee ko war a liggéey sax liggéey jafe ci moom lool bu dee ñenn ñi sax mën a dem ba àgg ci ñoom naqari deret lool jafe dëkkal lool fekk la ko waral mooy sori koor waaye nag su fekkee góorgóorlu na ba weer wi mu woor ci lu bari ba miin koor weeru farata wi day ñëw fekk moom amatu ci benn jafe-jafe day continuer rek def na mu doon def yàlla na sunu borom tabaraka wa taala baaxe defal nu ragal yàlla ci sunuy xol mu feeñ ci sunuy jër sunuy cër te xéewale nu topp lépp loo xam ne ngërëmul sunu borom tabaraka wa taala ca te sori lépp loo xam ne si meram daf caa nekk moom tabaraka wa taala wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allah